dëgër dëgëral l'islam la ndax mom tamit daf ko don ndax wajuram bu gor koku mo ngi génnee aduna 1978 koku tamit bi muy génnee aduna daf ko don bàttali ko ci affaire tabax juma donc mom depuis 1978 ci la commencé di tabax juma ba 2007 li mo nek dernier yéeneem donc at bu nek mon na jéxal ben juma mon na jéxal jàkk dund bi yépp ci loolu la ko don liggé ñu nag suñu sante mu ngi gëna a ci li nga xam ne ñun dañoo gisoon pàkk bi te gis ko ci plan de masse bi rek ñu ne mosquée la ñun nag buñ ko gisee aussi am na ci loo xam ne amoon nañ luñ ci xamoon ndax ci doomu sëñ bi ñëwoon na waxtaan ci ak ñun ca fële ci ginnaaw boobu man maa fi ne woon booba ñu bari dañoo yëgseegul woon xamaguñ di fi xew mais ba ñu demee dem ba ci kanam itam ah, ku nekk di foog rek ne xëy na jamono ji moo neexugul ah ñoom mënaguñ yëgseeguñu ñu ne woon nag ñun nañu fàggu loo xam ne bu ñu ñëwee bu fekkee ne dañuy def ñun ñu fekk ñu xam ne nag unité bi ñu nekk muy unité 12A ak ñunu suñu bokk jullit yi ñu wër muy cité gendarmerie ak ñaari jaxaay yi bu ñu ñu ñu commencé liñ ci ne ba ñu demee dem nag bi nga xam ne yàlla gën naa ubbeeti li muy dog ci jàppale ñu ci suñu liñ doon yéene mu daal di indi nag euh, Soriba Diaby biñ toogee waxtaan ak moom mu ni léegi yéen seen yéene yegg na ndax leen seen kilifa ñoom ñoo doon def yëf yi te du ko sémboon bàyyi ko fi kon nag ñoom dañ koy defar ba mu yegg looloo itam déggoon nañ ci ñun ñëpp itam déggoon nañ ci amaa ñu itam amoon na lu ñu denc loo xam ne dañoo bëggoon a defar yàlla xam na ne moom li ci nekkoon sax daanaka mënoon nañ cee sore sore sore bu baax a baax a baax ah foofoo tam ñu ngi fiy sant waa kër gi ndax ñëw ci sa koñ ñëw ci sa gox defaral la juma kooku ñun mënuñu lu dul di leen sant di leen ñaanal. fii dafa nekk béréb boo xam ne daf ko fonkoon la xaw ma nag ci wàllu baatin lan la ci gis waaye jamono boobu bi ñuy ñëw fii àll kese la woon mu ne suñu suñu doxee fii ak ci kanam tuuti rek dinañ fi gisee ay changement yu gën a bëri. te lolu commencé nañ ko gis donc lolu tax mu taamu jakk ji pour ñu ñu taxawal ko lolu xaritam yi domam yi rakam yi ñepp la ko doon wax pour ñepp taxaw ci euh, ji waaw voilà mais du ji kese bari na juma yo xamne bo gisé li Defa yeex dafa am juma yu bari yo xamne dañ ko commencé ci ay gox liko dalé dalee Casamance be Kédougou ba côté Fouta be Bundu donc ci yoy lañ nekkone donc balaa yooyu di pare loolu tax fii xaw a yeex tuuti donc yàlla ren la dogale fii tamit ñu ñëw mën a commencé kii pour mën a àgg